Pansane mu mel ni bi ñu ba tey man une yi ma xool yëpp ci bëri c'est comme si euh, le le maire de Dakar a, a déjà perdu euh, la mairie d'après décision bi nga xamante ne démb na fale ci tribunal. c'est archi faux c'est archi faux. bu et, et malheureusement depuis 2012 et je le dis ici et malheureusement et ça m'attriste et, et j'ai j'ai j'ai j'ai mal pour cela c'est que depuis le pouvoir en place quand il veut liquider quelqu'un il passe par la presse et c'est pas sérieux mm -hmm. c'est pas sérieux saay président Macky Sall wax Barthélemy Dias defoo dara dañ la tooñ mm-hmm. ñu bëgg a ñëwaat cette même justice ñëw ne non Barthélemy def na ngeen condamné que pour takkal ko pour trouver le prétexte pour soi-disant jële ko ci maire bi et cetera cette obsession pour Dakar laa xamul lu tax lan la Dakar am lu war a tax président Macky Sall ak ñi mu àndal am cette obsession là et utilisant les médias parce que ce n'est pas sérieux la presse là lu noo def di dañu ko wax fii mu neex leen mu naq leen ce n'est pas sérieux l'information c'est pas est-ce que Barthélémy Diaz va perdre Barthélémy Diaz risque de perdre c'est faux bu fekkee pourquoi la presse ne dit pas que balistique ba dafa ne bal ba nga xam ne moo faat Ndiaga Diouf du bal bu jóge ci pistolet Barthélémy pourquoi cette presse ne dit jamais ça c'est offusquant te bu nu waxee nu ne nun dañoo am nu nu mel léeg leen nu am avenir noo tey sax nan nu baal parce que yàlla dafa bëgg dëgg et la presse sénégalaise ne doit pas fonctionner dans ce sens tous les journaux xoolal saay fajar gi damaa xool journaux yi rek reetaan nañ ma baal aw ma benn maqaama mais xam na nu dafa am loo xam dañu kaa xam ne tekk du dëgg du yoon La question, c'est pas Barthélemy risque de. C'est une façon d'influencer les masses, de nous mettre ça dans notre subconscient pour que le sieur perde son, sa, sa, son magistère. C'est pas sérieux. Pendant ce temps, combien de choses malsaines se passent avec ce régime-là Vous ne l'écrivez pas. Il faut que nous sérieux. Yàlla dafa bëgg dëgg sa waay réew mi foofu mu dox si dëgg nu bàyyi fo bi mënuñu continuer de fo nii rek na bu yeboon nu ngi jox ay milliards ci journal bi jaru ka sunu boroom journaliste bu nekk ak ka doon ngay transitaire ngay douanier ngay médecin kaa munti doon wallahi azim nga gëm nga bañ a gëm borom bi ñetti fanu bàmmeel dina la laaj malaaka yi daanu la laaj te baa yeggee si borom bi dinañ la laaj tegal la sa écran ñun ñépp nag mm-hmm. moo xam ñu topp ci xale yu jigéen yeeg topp ci ñetti ay góor lañu ko si nekk daanu la laaj massa nag boo jëlee askan di ko tromper j'ai lu j'ai regardé ce sont mes amis et frères mais c'est pas sérieux ce qui se passe avec Barthélemy ce n'est pas sérieux et c'est comme ça que la presse va continuer on l'a fait contre Karim Meïssa Wade c'est tout le monde se disait yoon la ñu vérifier les comptes reddition de comptes ak Karim Meïssa Wade mais bañ demee ba ci biir gis ne moom rek la ñu téye bàyyi ñu sa des parce que ñeneen ñi ànd nañu ak moom dañoo ne c'est injuste ñun dañ danoo waxoon toog naa Walfadjri 2011 aa ngi dégg aw. bu baax sekk ma ne Karim Meïssa Wade ak ña ca des bu nu wàccee dañoo war a xool compte yi. maa ko waxoon. Mhm. ba ñu demee ba ci biir ci xool compte gis nañu que lanu waxoon amut noonu la ñu taxawaatee xulil. Mhm. ne Karim Meïssa Wade bi nu ngi tooñ. na nu bàyyi jàmbur. Cour CEDEAO confirmé ko ñu dem Monaco ñu confirmé ko ak fa sa des. Mhm. président Macky Sall jël ñeneen ñi làq ci wetam Ousmane Ngom jëliwuñ ko Kolda xaw ma ak hélicoptère. ak ña sa des ñooy tey suñu baay boobu ak ña sa des ñëw ànd ak président qu'est-ce que ça veut ñu wax ni c'est injuste dañ kaa wax tuuti ñu teg si diir sanu yaay bii di ministre affaires étrangères di Aïssata Tall Sall avocat bu mag bi ne Karim Meïssa Wade deful dara nañ ko bàyyi parce que loolu moo la dëgg waaw aujourd'hui malheureusement bi ñu jógee ci Karim Meïssa Wade pour liquider Khalifa Ababacar Sall on a utilisé encore la presse. Mm-hmm. dañuy génne information bi jaxase xelu nit yi pour que nit ñi am dugg ci kooku. jàpp bi gën a yomb il faut que ça cesse presse du Sénégal bàyyi leen di jàppale loo xam ne du yoon en 2010 2011 bañ si tolloo cette presse là n'écrivait pas comme ça Ablaye Wade da doon teg loo xam ne du yoon ñu bind ko dénoncé ko aujourd'hui le président Macky Sall di teg loo xam ne du yoon vous ne le dites pas et vous êtes vous tirez sur les autres Assemblée nationale on a vu ce qui s'est passé forfaiture bu leer nañ. Mamadou Lamine Diallo joxe ay solution ne hey bu ngeen defee nii ak nii ak nii carte gi leer nañ dafa raccroché pare mu mel ni sunu yaay bi Aïda Sow Diawara dañ ko dee wooteel diir lañ ci teg bu ndaw gendarme yi dugg parce que boobu Mamadou Lamine Diallo joxe na solution bi et bu leeree ci bopp nit ñi rek jàmm day am bu ñu demee élection ci jàmm amaana cóol-cóol am ñu jaxase carte gi dugal gendarme yi bloqué les gens voilà ce qui se passe et la presse bi muy traité bi elle n'en a pas fait elle a plus tiré dans le sens opposant yi indiscipline et cetera nañuy waxante dëgg te seet suñu borom ka neex ak ka mu neexul la presse du Sénégal arrêtez ça tirez dans le bon sens le bon sens c'est quoi mooy Barthélemy daf fi nekkoon doon xeex ci principe mm-hmm. ñu jël ay jeunes dajale leen ñu dem di attaquer meeram lan moo tax ñu doon attaquer meeram ñen ñoo fi nekkoon lu tax ñu defoon ko ci légitime défense tout la presse parlait dans ce sens Autant, en la presse là qui parle ainsi, parlait dans le sens de légitime défense. Waaw nguur bi changé, données yi changé, maintenant on dit il risque de perdre. Du dëgg du yoon. Mhm. Et les Sénégalais ne doivent pas l'accepter. Dafa yomb ce qui se passe là. On élimine les gens, on les sucre, on les met au frigo, on embrigade à gauche, à droite, et voilà, la dictature s'installe comme ça. Quand la presse désinforme, la dictature s'installe. et presse bii nii wallahi azim yàlla ñu yàlla may fekkee tal gis nga li ngeen dee bokk di ko liggéey nii di ànd ak nguur gi bis dina ñëw seen kaw lay këpp parce que bu boobaa dootu leen am papier journal dootu leen am xaalis bi ñu leen dee jox bu dee da leen koy jox dootu leen am moyen kenn dootul wax si yéen il faut réfléchir nanu dox si dëgg waaye c'est un sujet qui m'énerve nga baal ma ah ah waa kon léegi xolal jël sa kafe naan nànk jël sa temps ah le temps ñu dem ci kii nga daal di wàccee tension yi euh, Jérôme dégg nga waxtaan bi mu mel ni euh, ci affaire Barth bi dañu am une justice à géométrie variable mu nekk lu doy waar saa yu ñu jubsee dara élection wala dara wala ñu génn ci ay élection mu mel ni mairie Dakar am na am na am na lu ci lu ci lu ci nekk loo xamante ne peut-être dafay intéresser ñi nekk parti au pouvoir te mënuñu ko gagner ci urne yi donc son sont obligés di peut-être di di trouver yeneen moyen pour pour pour y accéder. man de jàpp naa lii moom sonal sa bopp rek mhm. tax nga wax loolu. xam nga doo mën a sonal sa bopp askan wi mooy tànn. Mhm. askan wi ñooy xool ku ñu wóolu teg ko fa. tey suñu tegoon Barthélémy Dias xëy na am na keneen koo xam ne moom ci ginnaaw Barthélémy Dias mën nañu jël jëlaat mairie bi. te te ni ko askan wi bëggee doxale boo mu doxee noonu lay daal di doxee. Hmm. c'était le cas avec Ababacar nu ñu koy di sax. Khalifa Sall ba tax journal bi ti ti yenn journaux di titre naan cruel destin c'était comme si que ñoom ñaar seen destin dafa croisé alors que croisé wul. Hmm. parce que Barthélémy Dias xëy na condamné ko waaye moom li mu wax lenn te avocat tamit li mu wax lenn mairie bi nga xamante ne moom la nekk mu mairie de Dakar. Hmm. moom du ci jóge Khalifa Sall bi nga xamante ni dañ koo daal di révoqué boobu mu ngi woon prison. Mhm. te Barth moom daanaka certes condamné nañ ko mais moom peine bi nga xam ne moom lañ ko condamné tudd la a may ñëwaat li nga xamante moom la moom tiitraayu euh, bi. Mhm. bon Pa Assane d'une part a raison de de ni ñu koy waxee je ne vais pas dire tirer parce que tirer c'est un mot assez fort mais war na tamit di ŋàññi suñu yenn confrères yi nga xamante ne man je ne comprends pas leur leur titrage. yow déjà dañ ne condamnation am na. mais est-ce que condamnation boobu mën na indi li nga xamante ne moo tax ba xalif euh, Barthélémy Dias war a mën a perdre mairie wala perdre mandat bi nga xam ne am na ko ci assemblée nationale. mais yaakaar naa ni que sooy sooy tiitre mais da ngay tiitre dans la logique où ne lii ak lii mën na am. su nekkee yow da nga jox parole li nga xamante ne ñoom ay seen ay consultants lañ en en en justice seen xam-xam màcc na ci ci wàllum justice ñu leen ñeneen ñu leen di woowee ay ay ay juristes. mais su nekkee ñoom ñoo la tegal ne lii ak lii ak lii nga xamante ne am na ci condamnation Barthélemy Diaz mën na tax ba Barthélemy Diaz daal di perdre li nga xamante ne mooy mandat ñu ne diw nangam nangam moo ko wax waaye ñun dañoo xëy rek nekk kanamu euh, li nga xamante ne moo di euh, internet yi wala sax ñi nga xam ne ñoo dee lecteurs journaux yi ne Barthélemy Diaz risque de perdre li nga xamante ne moo di mairie Dakar te teguñu ko fenn. Mhm. mën nañu ne ni fii ak fii ak fii lañ ko teg mën daal li ma mënoon li ma mënoon dégg moo di Barthélemy Diaz condamné nañ ko peine 5 ans day dellu kaso. peut-être ñu ne dans ce président mën na jaarale fi nga xamante ni moom la jaarale woon Khalifa Sall daal di koy révoqué mu daal di perdre li nga xamante ni moo di euh, mandat de de député li nga xamante ni moo di mairie de Dakar te laata muy perdre loolu noonu Barthélémy Dias bu leen fàttali ne c'est un député élu donc fa nañ ko jaarale ci assemblée nationale daal di ñori mbalaanu euh, kiiraayam te loolu gëmu ne suñu suñu eggee ci assemblée nationale dina jàll. mais bu fekkee ni boo bu dafa mel ni euh, li juriste yi wax boo amee condamnation bu nekk sa kaw da ngay perdre sa éligibilité. xam nga déjà Barthélémy Dias moom du ko neex mu dem wuyu ji su ko neexoon ne du dem ndax député laa. mais xam nga affaire bi dafa yàgg te moom moo saako ñu jugé waat ko ndax mu ñu fàtte ni. li procès en appel la ça. procès en appel la maanaam dafa amoon condamnation boo xamante ne teram voilà am na condamnation boo xam ne amoon na ci ci kawam moom mu jàpp ne injuste moo tax mu mu daal appel te aussi tamit man des comme je l'ai dit je suis pas un spécialiste des des questions juridiques mais man des je me demande procureur yi ndax ñoom dañ fay nekk juste bon sens lay laaj non en mhm. mhm. am na série boo xam ne da daan seetaan te li ñu wax ni ci wàllum justice dañu ne am na ñuy wax expert balistique moom wax na ko sànq. ñaari pistolet yi nga xam ne moom la Barthélémy Dias yoroon te ñëpp gis ko ci image ne moom la juróon di tiire bal ba ci tukkee xanaa kañ du ñeenti bal wala juróomi bal yu a différence léegi ñaari jël ci ñaari arme Barthélémy Dias bi ñu ko méngaleeg bal bi nga xamante moo rey Ndiaga Diouf dañ ne bokkul mhm. donc loolu rek laa la wax ne disculpé na Barthélémy Dias yàpp fan fu mu ci dem fii ba tribunal de la parce que li nga xamante ne moo fàtte Ndiaga Diouf jikkiwul ci Barthélémy Dias da loolu dafa leer du ñu ñoo ko wax kayit yi nga xamante ne ñoom ñoo ko sàq woon ci expert balistique bi moo ko génnee donc dans ce cas Barthélémy ci loolu la mën a sukkandiku ne man liñ ma tuumal defuma ko te naa ni fii ba fu mu mën ci dem Barthélémy moom il la conscience tranquille même su yoon daan na ko moom il aura la conscience tranquille que ne li nga xamante moom lañ ko tuunal moom defu ko même su fekkee carrément bëggoon na euh, li nga xamante moom di justice Sénégal daal di koy setal nee na moom bokk na ci liñ ko doon toppee liñ koy toppee nee amuñu amul autorisation de port d'arme te nee moom amoon na ko ci jamono jooje. nangu ñun sekk boobu xale ko ci jàpp loolu moom mën nañu na tëdd benn peine. Mhm. mais tamit nañu nañu waxante dëgg yow nit ku mel baat li jaar dina am. bi ñu koy rey dina dañ ne ci li ma fàttaliku dañ ne port d'arme autorisation benn arme la am. mais amul autorisation am ñaari arme loolu daal fàttaliku naa ne moom lañ ko toppee. ndax moom ñaari arme la yor. mais muy tiire. waaw bu dee tiire la. noonu loolu lañu wax ne moom loolu lañ ko daal di toppee maanaam ñaari arme yoroon benn benn euh, benn gi sax autorisation valable pour benn arme la xëy na loolu mën naa nangu ne su nekkee moo am yoon hmm. daan ko ci loola mais li ñuy wax nag paatum Ndiaga ci man d'après li nga xamante ne gis naa ko ñu publier ko ñu ne moo faat Ndiaga Diouf jógal ci Barthélémy Dias. loolu de xanaa mooy wax ju tënk waa sax. non c'est que xam nga xam nga dañu il faut que il ñu ñu comprendre une chose. xanaa xamoo léeg euh, ci ci maanaam dara bu xewee. sawaay. baa waxul dëgg. wax lu dul dëgg. wax lu dul dëgg débat bi c'est simple. nguur bi fi nekk dafa am obsession sur la capitale sénégalaise ginnaaw yéen mënu leen ko gañe du ngeen yàlla vous ne gagnerez pas Dakar parce que les Dakarois ne veulent pas les Dakarois souffrent le martyre Dakar est l'une des villes les plus sales au monde pourquoi parce qu'un maire était là vous avez bloqué l'un de ses plus grands projets c'est-à-dire désengorger le centre-ville par la place de l'indépendance un emprunt obligataire de 20 milliards ngeen bloqué que comment est-ce que ngeen xeex maire bi parce que bëggu leen mu liggéey comme ni ngeen def rek jamono bi bloqué seen ay dotation bañ maire yeew yi liggéey. te li ma jaaxal Paa Assane dagguma la mooy Barthélémy Dias dafa dem France am naa partenariat yoo xamante ne war na ko dem euh, wuti foofu war ko war koo xaatim te su jógee foofu dem tamit ci. Euh, projet bi nga xamante ne amoon na ko mooy bu ñuy euh, après forum de l'eau mhm. projet euh, bi mu lancé woon ci ni koy def sax ci weer fàtte naa weer mois yi passé la woon nga xamante ne woon na benn voilà weer ñu génn lancé woon na benn projet bi nga xamante ne bokk na ci mhm. euh, defaraat yenn école yi ci Ndakaaru ba mu signé woon ay ay ay kii ni ay partenariat ak ñi nga xamante ne mooy mairie bu ne mairie bu nekk fële ne de au niveau du Québec ak Canada am na ay contrat yi nga xam ne xaatimoon na ko xëy na ci loolu la ñu gis ne kii suñ ko tegul loxo dina def def loo xamante ne population bi ñun dañuy gën a xeex parce que dañ naan ñun liggéeyuñu. wax léegi merci Jérôme léegi. Mhm. mais Sénégal àtte leen at ah, nan ñu àtte rek xam nga man léeg-léeg ma ma ma léeg-léeg parfois moo tax nabu koor yàlla seede na ni yaa may laaj sànq lu tax démb ñëw parfois on n'a pas envie dëgg rek laay wax mënu maa nar mënu wax lu amul. parfois on se réveille on dit j'ai pas envie tojuñu fet nag mais xam nga lu tax parce que sa xool mooy metti dangay gis loo xam ne yow leer na ne tey boo toogee ci entretien bi di nga daggal nga nee non bul dem toogal parce que boo demee dana ñaaw bàyyil mu seet yàlla seetaan daf ñuy dal dañu naan teg xool ne gis nañ loo xam ni mënuñu ko ñàkk bañ a wax léegi bàyyi nu toog ci kër gi daggal ko ci kër gi kenn du ñu dégg xuli danoo tëj. ñay waasu kër sax du duñu dégg te kër ga lañ koy yemal rek di daggal ñoo daggal ba ba doyal nag ñàkk tooy xëpp nag sangu tëdd nelaw parce que ce qui se passe est dégueulasse man musuma gis lii si àdduna mën naa comprendre ngay xeex nit mais yow da ngay defal waa ji li muy def baax na non su baaxee dañ daan man defuma nga bloqué ko yow yaa am xel yow yow yow am nga xel yow yow am nga xel nañ waxante dëgg rek kilifa yi ngeen baal nu nag ak cër bi leen jox parce que cër moo tax ñuy wax baal leen nu mais suñu réew moo tax nuy wax dégg nga wax bi nabu ko. oui cër cër cëru mag cëru institution ak cër kilifa kilifteef gi leen yàlla defal. Mm-hmm. mais seen ay choix bu baaxul dañu kaa wax. vous ne pouvez mais mais saa waay de combattre le gens ce régime là arrêtez de combattre les sénégalais comme vous Khalifa Ababacar Sall dafa amoon un projet super méga terrain intéressant pour Dakar. Mm-hmm. mu mmh. commencé ay pavage commencé defar Dakar pour combattre Khalifa ngeen trouver toutes les astuces possibles mm. dem indi renouveau urbain ministère jën Farba Sarr tourner teg Abdou Karim Fofana urbanisme hygiène pour soi-disant oui zéro déchet à Dakar président bi dem fële ca Dubaï naan Dakar est sale mais parce que vous l'avez causé yéen yéen a bloqué maire bi amoon initiative yu baax parce que politiquement soi-disant da ngeen xeex bu il veut être candidat il a des ambitions ngeen ne non au bout de deux ans le président doit avoir un autre mandat képp ku nar a taxaw ci yoon dañ lay bloqué ngeen combattre que alors qu'il fallait pas le combattre Khalifa Ababacar Sall il fallait pas le combattre Ousmane Sonko il fallait pas le combattre il fallait juste en faire des alliés yan façon alliés Ousmane Sonko il est au niveau des impôts et domaines vous le laissez faire son travail et revendiquer comme syndicaliste ngeen kaa déglu di rectifier le mhm. Sall Sall il a de bonnes intentions vous le Khalifa Abacar Sall était maire au temps de Wade le président Wade le recevait dañ doon waxtaan y avait pas de problème relation de civilité civilisé daa baax civilisé civilisé am sens des civilités jox cër nit daa am solo baa leen nit nag baa jiitalee nit nag da nga ko jox cër mais boo jàppee ni yow rek yaay nit ñeneen du nit aussi doo joxe cër moo tax nit ñi tam du la jox cër et quand vous exigez qu'on vous respecte mais vous devez respecter les gens aujourd'hui ce qui se passe mooy que dañu am nguur boo xam ne respecté wuñu xam lu mu xam jaay doole moo tax toujours day metti ci moom xanaa xamoon ni nguur gi léeg-léeg sax muy def lu baax mais du safe parce que dañoo dëkk di ñu mettital vous combattez Khalifa Ababacar Sall vous combattez Barthélémy Dias vous allez combattre tout le monde et finalement vous allez travailler pour qui C'est la question que tout le monde pose. Vous allez faire le Sénégal pour qui et avec qui mm -hmm. Sachant qu'il y a des paramètres que vous ne maîtriserez jamais. Dépendre wu si yéen yàlla dafa appal mu neex leen mu naqari leen mais voilà nos autorités tranquilles kenn du fi yëngatu kenn du fi wax bon maintenant les gens qui veulent travailler élus par les populations bokk ñoom ñun camp on les massacre on bloque leur dotation on leur empêche seen ay salaire mais sa waay Sénégal yéen du ngeen jóg nu wax si lii mais lii mënul continuer lii mënul wéy c'est-à-dire que lii nooteel la lii nooteel la mënul wéy dëkk Dakar duñ ko defar le maire n'est pas avec vous bokkul ci seen camp donc vous allez bloquer Dakar les projets vous coincez li vous voulez juste coincer tout le monde force récupérer la mairie am le contrôle daal na ne léegi nañ ko defar waaye yal na yàlla dindi loolu waay. merci Pa Assane Jérôme man benn problème rek laa am au fait j'aimerais juste savoir dans cette histoire am na ñuy àndoon ak euh, Ndiaga Diouf ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi masawu famille am di leen di leen di leen euh, jaalewaat seen doom. di ànd bokk ak ñoom nakar bi mais j'aimerais bien savoir. ñi àndoon ak Ndiaga Diouf anañu dans cette histoire parce que baaxte la ñuy dégg boobu ba tey médecin yi nga xamante ne bi ñu ko jagat jagatee yóbbu hôpital aussi. ñoo ko consulté ñoom anañu. question bi nag bi passé moo waroon sax euh, procès bi ak voilà et et qu'est-ce qui a changé entre temps bi président Macky Sall di dem ci euh, Barth di ko wax que ni dañ la tooñ et et maintenant euh, quoi le problème. Il y a eu onze ans de différence fukki at ak lu teg. am ci diggante la la mbiri amee ak ak jamono ji. Mhm. déggoo amatul ambition am na. ku ci nekk moo ngi moo ngi jéem a defar defar sa boor ne lii maa ko war a liggéey maa war a am lii maa war a am lee xëccoo am seen biir. Mhm. te aussi tamit parti socialiste dafa tabat dafa tas ci diggante bi. Barthélémy Dias Khalifa Sall génn ñu jàpp ne ñoom dañu am ambition donc képp ko am ambition ci kaw président Macky Sall xëy na peut-être lay fexel looloo tax sax cas bi accès fii mais mënoon na fa bañ a accès. Mhm. te en yaa ngi wax sànq ne ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Ndiaga Diouf mais Barthélémy Dias bi laata ñuy amal report yi même moom loolu la wax. moo doon sàkk ñi nga xamante ne jour boobu ñoo àndoon ak ñoom te ñu formellement identifié woon leen mais ñu ñëw taxaw témoigner kan moo ci yoroon arme kan moo doon tiire. ak lan lañ fa doon def. ñi lan lañ fa doon kay xam nañ ko kan moo leen yónni bu dee dañ leen commandité. nan leen xam nañ leen. non au fait j'aimerais juste que ñoom. comme ni ñuy jëlee Barth depuis 11 ans jangat jangati yóbbu tribunal jugé te génne que ñu am aussi benn aperçu ci ñoom wala ñu am ñu déglu leen ñu wax wala ñu xam tamit ñoom lan lañ fa doon def lan kan moo commandité mbir yi ak lan moo tax mu yegg si foofu ak Ndiaga Diouf bi ñu ko jëlee yóbbu ko ba ba ba foofu naka la demee médecin yi ko accueillir aussi on aimerait bien savoir mu gën a leer suñu bopp. xam nga Ndabukor comme comme tu l'as dit yëf yi dafa dem dafa tiré en longueur dafa dem ba ñi nga xamante ne ñoo sekkoon euh, mbir mi te ba muy door. ñu si bari wu xaw ma ndax am na xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan entre am na ñoo xamante ne ñoo ngi dund am na ñoo xam kenn xamul daal yëf yi de parce dafa yàgg tellement que yow 11 ans pendant 11 ans dugg nga kaso génnaat fal nañ la député nekk nga fi maire entre temps sa dayoo gën a yokku ña nga doon àndal ñenn ñi àndatoog ñoom ñi nga xamante ne ñoo la doon xeexi léegi yéen ànd ñooy ànd ak yow maanaam dafa dem ba sénégalais yi sax am na ñoo xam ne dañoo dem ba dañoo jippi procès bi. dañoo dem ba xam ne lii nekkalul sax yoon mais mbirum politique moo nekk ci suuf. tu vois soo gisee nag démb taxawaay bi nga xamante ne yenn way politique yi ak askan wi am nañ ko ci Barthélémy Dias nga xamante mhm. li jàpp nañ ne lii du yoon kese parce que su nekkoon yoon daanaka yëf yi ba mu amee trois mois après la ñu waroon wax ne Barthélémy Dias mën nga mën nga ñibbi sa kër dañu gis fii daal nekk loo xamante ne motif de condamnation la à ton mhm. donc yëf su dee su ñëwee ba accès fii nii ngeen baal ñu mais affaire yi man daal dafa dem ba ngay topp nit ki ci loo xamante ne yow leer na leen moom defu ko suñu sukkandikoo ci li nga xamante ne moom la expert yi wax. parce que ñun ñoo ko wax ñoom ñoo def seen i kayit ñoo ñoo établir ne li ñu gis ne moo faat diw du moo ko du moo ko du moo ko ni euh, nga sax du dugal ci baat li muy jaas mais pourquoi yow mënoon na koo mënoo koo kii rek relaxé mu ñibbi. Mm-hmm. loolu tax ñu ne mbiri léegi politique ku politiqueul ànd ak. njiitu réew mi chaque fois da ngay am ay gàllankoor rek. Mhm. Ah. Euh, merci merci Jérôme wala tey am na lu muy demee sax man des fois li may laaj rek mooy Sénégal kañ dañuy dem ci séparation des pouvoirs ñu dem ba dara dootul takkalook lenn et ku nekk am libre liberté bu bu toll ni boo waree juger juger te dara du la tënk. loolu il faut ñu dem ci. pour ah, pour, voilà pour régler cette situation définitivement ñu bañ